برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نوينا بارنا نانسانتي يالا جتاي بي اك جيبي ديغي جتاي بي ak guddi gii. place bi ñu ngi wan barab. bàyyi na place bii ñu ngi wan barab. guddi gi ñu ngi wan jamono. guddi gi it ngi wan jamono. jamono barab rek nag moo am. jamono nag ak barab ñoom rek ka xam. kii maanaa kii jëmm kii maanaa jëmm ci jëmm la. jëmm ji mooy barab bi moom mooy yaa ngi ci toog. jëmm ji moom mooy barab bi yaa ngi ci toog. maanaam mooy jamono ji yaa ngi ci nekk waaye. maanaam mooy jamono ji xam nga ne yaa ci nekk. waaye man la cee dugal dara lu may jëf rek. waaye kat mënoo cee dugal dara lu may jëf rek nag. barab bi ñu yàlla pareel mooy suñu wàccuwaay. barab bi ñu yàlla pareel. moo di suñu wàccuwaay. jamono jim ñu pareel mooy suñu wàccuwaay ay jëf. jamono jim ñu pareel mooy suñu wàccuwaay jëf. kon nag bu yàlla defee guddi tey gii. kon nag bu yàlla defee guddi tey gii. la def muy suñu makkaan. fii ci Medina moom la def muy suñu makkaan. suñu jëf ji xam ne moo dugg ci guddi gii. jëf ji nga xam ne moo dugg ci guddi gi. mooy jekki xaale ngir yàlla siyaarante ngir yàlla. moo di jekki xaale ngir yàlla. di siyaarante it ngir yàlla. te loolu yàlla dale na ci dëbu rëy. maa ngi tàmbale ci barab ak jamono. bàyyi ne mi ngi tàmbale ci barab ak jamono. barab yi lu ci gën mooy néegi yàlla yi. barab yi lu ci gën. mooy néegi yàlla yi. na ngeen góorgóorlu di ca di déng-déng di ca dem. na ngeen góorgóorlu di déng-déng di ca dem. ak jotaay borom xam-xam yi joxe xam-xam bu wér. ak jotaay borom xam-xam yi bu wér. ñuy joxe xam-xam bu wér. ñuy li ci gën mooy la nga sédd yàlla rek. jamono li ci gën. mooy la nga ca weer wi nga xoor. weer wi nga xoor. ay minutes yi nga. su di di nga am ci sa jamono lii nga am ci sa barab loolu nga am ci sa jamono lii nga am ci sa barab barhaamu baaun waraun alifun thumma haa